aousubillahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahman irrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen ndokkeel di leen baalu àq bu baax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bi di Firi Guent TV officiel ñu ngi leen di nuyu bu baax di ñaan ko am gént ngeen jaar ci yoon yi nga xam ne moom lay sàkku toujours di wax ne nañ ko jaar par audio whatsapp wax naa ko ba sonn def naa ne nit ñi dégg nañ ko terewul ndaw kundaay yi ak càlleem yi kane ni ñu ngi des di dëgër bopp euh, xam naa ni ñooñu moom day nañu waar ba léegi teew ñu may woo rek wax naa ne woo ñu téléphone di ñu laaj gént euh, da yàq temps bu bari di leer ba leer mooy gént yi du par appel téléphone laa koy tontu mooy par audio whatsapp laa koy tontu beneen bi par ku def audio whatsapp da ngay def transfert cinq cent francs Wave la wala orange money soo paree capturer message bi nga defee transfert bi nga yónnee ko nga déglu ko danañ la nga déglu ko danañ la jox sa tontu incha allah li ñu sax képp ko def balaa ngay tëdd fii ñu ngi am tàll ak jàmm balaa ngay tëdd ci laal da nga jox sa tontu loolu daal maa ngi koy ñaan ñëpp rek bu dee ku ñu soxla ci leneen nag mën nga ñoo woo ci numéro yi ni ma koy waxee toujours bu ngeen demee ci TikTok am na ay yu def sama vidéo def seen numéro téléphone. ci suuf sooy envoyé sooy envoyé ñoom ngay transféré sama numéro bii xàmmee leen ko c'est 77 583 86 53 77 959 097 bi ngeen seetlu depuis ñu commencé def vidéo presque ab diir ngi nii numéro yi nañu joxe waa kay amuma numéro bu commencé 75 amuma bu commencé 78 te ñaari numéro yooyu loolu lañ ci def euh, tey ñu ñëw ak yéen ci gént avion wala aéroport defe naa waxoon nañ ne dañu bëgg ji vidéo yi muy dellu ci commentaire li ngeen bëgg ñu def ci video def leen ko ci commentaire dinañ ko ci def incha allah am na ko sàkkoon ñu def vidéo ci avion dama boole avion ak aéroport ci biir gént li ma njëkkee mooy danga gént nekk ci aéroport taxaw di xaar vol bu war a ñëw sa parce que danga am gan yu tukki di ñëw wala nga am ku ñëw nga toog di ko xaar nekk nga ci aéroport daal am na xaar lan lay firi day firi atteindre sa objectif ci say projet wala ci say mbir waaye nag ginnaaw effort yu bari ginnaaw coono yu bari ginnaaw muñ yu bari muñ dëgg-dëgg bu la fekkee ci projet jàppal ne soo jàppee too bàyyi projet boobu jàppal ne dana sotti bu la fekkee ci lijjanti dara jàppal ne bul découragé mën naa bari coono mën naa yéex mën naa yàgg waaye loolu dana sotti loolu lay firi jigéen dangaa taxaw ci aéroport di xaar vol bu war a ñëw parce que am koo ci xaar ku ñëw wala wala doon jàppal ne loolu lay firi loolu benn la ñaareel bi taxaw nga ci avion bi am koy xaar balaa gént gi di jeex yëg nga kooku fu ñëwee ci biir gént gi day firi xàllul mashakil awil muskila maanaam bu fekkee daf laa fekkoon am ay jafe-jafe wala ay problème wala am mbir moo xam ne dafa nga bëggoon mu réglé wu day firnde mbir mooma danga ci am solution ci lu gaaw baax na ci gént loolu benn la danga gént gis avion ci kaw jaww ji muy naaw la nga gént gis gis nga avion buy naaw day dem wala day ñëw mu ci loolu yow daal yënga ci biir nelaw yi gis nga avion lan lay fiir day firi makaan aliya maanaam place bu kawe ci liggéey wala ci social wala lu mu mën a doon société bi daal mën nga fi am place bu kawe bu màgg wala dara ji la suñu borom cëralee baax na ci gént léeg dana firi xaalis bu bari incha allah kon baax na dangaa gént ci dawal avion yow yaa gént di conduire avion ci gént gént la goo xam tous dafa am rapport ak sa comportement yi sa melokaan dafa bokk ci gént yoo xam dañu wax ku ko gént dafay firnde yàlla séddaneeli na nga nekk benn nit ku am personalité nit ku mën a denc secret mais nit ku dogu pour say rêve nga réaliser ko say projet nga yàggali ko baax na ci gént kon dafay dellu ci melokaan nit ki danga nga gént gis aéroport rek xaaroo gan xaaroo dara gént nga daal gis la benn aéroport wala nga nekk nga ci biir aéroport bi day firi place liggéeyukaay baax na ci gént euh, danga gént nekk ci biir aéroport mais nga mel ni ku réer ci biir aéroport gént réer naa ci indi vidéo bi spécial da nga waaye fii nag ci biir aéroport nga nekk yow daal danga mel ni ku fa réer ci biir aéroport bi lan lay firi ci gént dafay firi moom itam dafa dellu ci sa comportement sa melokaan dañu wax dafay firi nit nga koo xam ne dooy gaaw di jël décision ndax bañ a def erreur nit ku teey nga nit ku bari looy moytu ndax bañ a juum ala xaalin melokaan bu baax la ci doomu adama dafa dellu ci sa sifaat yow te boobu baax na lool ci gént euh, balaa ñuy continuer def naa doon nañ leen woon ay cangat cangaay yi pour képp koo xam ne danga am jafe-jafe feebar la boo xam ne cat la feebar la boo xam ne rab la feebar la boo xam ne seytaane la boo xam ne liggéey la loolu mooy sa jafe-jafe fexeel jokkoo ñun nga jot jàngat yi nga xool incha allah lu te mën a doon yàlla mën la dëddale ak moom ci lu gaaw a jigéen boo xam ne rab moo la téye ba teel am borom kër wala ko xam say gàllankoor cat la fexeel jël ko incha allah ci euh, beneen jàngat la boo xam ne moom it kazalika koo xam ne jàng nga ba noppi palaasu liggéeyukaay de la të wala sa wërsëg dafa euh, néew wala daan nga bëgg ubbeeku wala ngay jaay bëgg am ci bayre jigéen boo xam ne da nga bëgg am borom kër kazalika mën nga koo jël moom it kazalika kii téere la boo xam ne moom la ñuy liggéey ñu di ko di dem pour jigéen joo xam ne da am jafe-jafe ci sëy bëgg gaaw a sëy incha allah kii itam sungu fi doon doon wan pour jigéen ñoo xam ne dañu nekk jigéen di sëy yéex am doom ci seen sëy wala ñu taxaw mën ngeen jokk ñun ci suñu numéro yi mën ngeen ñu woo appel bu ñu soxla ci loolu voilà Euh, càngat yi ñu yóbbu ci biir butéel yi ku nekk biti réew jokkool ak ñun mën na la fexe ba nga jot ko te nekk butéel yi mën nañ la defal feuille yi ba nga jot ko allah voilà ñu na ci euh, gént yi dangaa gént di tukki nekk ci biir avion di tukki danaa njëkkee jigéen joo xam ne dangay ngay sëy jigéen du am borom kër dangaa gént nekk ci avion di tukki day firi tukki ci yow baax na ci gént wala dana firi alal baax na kazalika bu dee góor goo xam ne am nga soxna gën di tukki dana fii firi alal ci biir avion dana fii firi alal léeg-léeg dana firi fay bor bu la fekk ñu ci jafe-jafey bor dana firi sa bor yooyu danga ko fay tukki ci avion ci kim baaxul mooy jigéen ju ëmb dangaa nekk jigéen wi gën nekk ci avion di tukki baaxul day firi euh, euh, comment dire euh, alxalaq wa tawattur mooy bari ay soucis wala ay ñàqare wala ay Euh, stressé dafa bari looy stressé ci sa ci sa jamono kooku moom gënut moom jigéen joo xam ne yaa ngi ci néegu sëy gént nekk ci aéroport bëgg a tukki waaye yow mën a xam ne man dëkk sàngam laa bëgg a jëm kooku sax ñëpp ñoo ko bokk jigéen buy sëy góor ak ñëpp ñoo ko bokk yow daal nekk nga ci aéroport waaye mënoo gëm ci xam ci gént dëkk bi nga jëm ban dëkk day firi coono yu psychologique wala ay jafe-jafe ci wàll famille baaxul ci gént jigéen ji ëmb gént nekk ci aéroport wala ngay xaar gan ci aéroport wala nga yëg ni jóge nga ci tukki gis sa bopp ci benn aéroport wax ma nekk gént gi yaa ngi ci biir avion bi laa waxoon ne baaxul mais daal yëg nga ne tukki nga ba wàcc dëkk day firi mucc bu jege ci yow waaye di firi wér ci yow ak li nga ëmb foofu baax na fi baaxul ci yow mooy gént nekk ci biir avion bi xale bu jigéen bu amul jëkkër gént nekk ci aéroport wala nga gént tukki ci avion wala nga gént euh, tukki ci avion ba wàcc beneen dëkk day firi jëkkër ci lu yàggatul dara baax na ci gént naka noonu góor boo xam ne amagula soxna célibataire gént tukki day firi jógee fi nga nekk ci tolluwaay dem fu ko gën a kawe tukki ci avion laa wax gént nekk ci biir avion day firi soxna ci yow tukki ba wàcc dëkk ci aéroport ci xale bu jigéen bu amul jëkkër day firi réussite wala atteindre sa objectif ci seen biir ala kulli xaalin baax na ci gént ñu ngi leen di ñaan ko am laaj mën ngeen jaar ci yoon yi wa ma zalika allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu